asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah dama bëggoon rek ñu bokk taxaw seetlu te jéem xalaat te xam na yàlla moo nu tiim te ñu bokk wax dëgg kàddu yi Cheikh Omar Diagne wax Karim wax ko jëme ko ci imam Ndaw te imaam Ndaw li wax leer na nañ te ñoom ñaar ñi li imaam Ndaw wax moom lañ nettali muy Karim ak Cheikh Omar Diagne wax ci imaam Ndaw Sénégalais yëpp ñoo ko bokk xalaatandoo noonu te gisuma ci lenn loo xam ne si luy gaañle wala lu ñaaw Suzanne Camara nee woon na fi dañoo war a rey Ousmane sonk wax na ko fi est-ce que tudd nañ ko gendarme bii ñu rey li waxit leer na Pape Alé moo tax ñu rey ko moo tax ñu rey ko est-ce que war nañoo rey ñoom li waxoon ci Barthélemy jur wax waaye xooli ñaari gendarme yi faatu alam coox moom te ba heure bi procureur wóoluwu ko kan boo ko goree réew mi ñoo ko moom Macky Sall moomu ko bàyyi moomu ko te xale ci kaso bi sonn lañ dama ne ci kaso bi sonn nañ Suzanne Camara mii kàdd yu mu génne teg ko ci Ousmane Sonko moom mu dem ba xam ne li wax du dëgg moo ñu ko tuub di dégg ñu fenn fu ko Ousmane de baal naa la defe naa ne gendarmerie waroon na koo jël lu toll ni ay gendarme des renseignements généraux moom mu taxaw tele ni dañ leen a rey ñoo leen rey parce que dañoo am collaboration ak Pa Alé Niang gendarme bi dañ ko rey taxal ko du dëgg sama doomu baay bi Dramé mi ci kaso bi tëdd ñu sonal ko trop waawaay réew mi am leen jom teg leen seen bët ci Mali teg leen seen bët sax ci coupe du monde bi par exemple tous les entraîneurs africains on montré que les Français mënuñu leen yóbbu fenn ñi am entraîneur ñi nga xam ne ñi nga xam ne ay africains ñoo leen téye kenn ku ne ak nga fan foogunu ko woon donc it's time to come back home. Let's come home together. Let's come back home together. Suzanne Camara dañ ko war a téye dama justice bu ko defee même les élèves de droit élèves yi nekk droit dans les facultés wóor na ne Suzanne Camara bañ koo war a denc du tey mais ce a révélé lii mu révélé surtout bu concerne la gendarmerie et l'armée dafa jaadu woon dafa jaadoo woon le procureur autosaisir document bi C'est comme ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ça ne pas ay chaise combien de fois. dóor nañ fa Ousmane sonk lu ne def na ko fa ci assemblée nationale cette fois ci ñu convoqué ay député pour lan pour wàññi nombre bi wàññi nombre bi et je penserais que les Sénégalais duñ ko accepter duñ ko accepter parce que c'est un pays boo xam ne nous sommes condamnés a vivre ensemble Macky jàpp tëj ak a beddi duma ak damm dafa war a dàkk Cheikh Omar dara la fi waxul Dramé bi dara la fi waxul di ko ci kaso bi di ko dóor du ngeen nit du ngeen nit waaye yàlla dañoo àkke atte xale yëpp lañu war a génn Ousmane Diagne mi ñëpp war a génn Suzanne Camara moo war a dugg ci biir Bougangeli moo war dugg ci biir dama ne Bougangeli moo war a dugg ci biir faux billets mettre des faux billets la fay mbay njaay ba ci taawam bi ñoo dugg ci kaso bi waaw ah. Mamour Diallo war dugg ci kaso bi Mansour Faye dugg ci kaso bi ah Amadou war dugg ci kaso bi Cheikh Omar Diagne ko ba mu dellu këram Abdou Karim ko bàyyi mu dellu këram Pa Alé Niang dellu këram tous ces imbéciles nekk ci biir dëkk bi ah di sàcc al réew mi ka lekk ñoo ñooñu dañu war a téye Farba Ngom moo war a dem ci biir ma jàmbal moo dem ci biir ah Abdou Mbow moo dem ci biir ah Yankhoba Diattara moo war ci biir idée war dem ci biir ñu songu Guy Marius Sagna gis ko def teblee ci assemblée bi dafa taxawal alkaati yi dama réew mi xale yi jóg leen bu ngeen jógul torox ngeen te kenn du ko faj ku dul yéen dama ne kenn du ko faj ku dul yéen jóg leen ngeen lijjanti seen bopp mag ñi ngeen di xaar mënuñu régler dara paa yi ngeen di xaar bi ngeen di jàng amuñu kaye kaye bu leen jox amuñu ko seen ndey ñu leen ay kaye ki bit xale jóg leen ngeen lijjanti seen mag ñi ñoo sarxe réew mi torox tàngi gi ngeen jàkkaar lool jànkaar lool nun ñi dama ne noo ko waral ndax bu fekkonte ne fukkikoon nañ xeex dangeen fekk dara waaye tubaab bi dañoo jëf jëfin yoo xam ne dama ne ëpp naa nettali sax nit di ko dégg yéen xale yi bu ngeen jógul torox ngeen jóg leen ànd ak waa diaspora bi lijjanti ko wax na leen ko sàng coupe di monde bi ni mu demee rek ah ak jom ji ngeen am yéen xale yi moo leen di wan ne bu ngeen góor góor góorgóorloo jóg taxaw tubaab bi du dara Ousmane Sonko dafay bëgg a dee Ousmane wone na bunt yëpp waaye du ne jóg leen taal dëkk bi di ko wax yéen a waram fulla jóg taxaw yéen a waroon fulla ju ma sëkk jóg taxaw nii Ousmane Tounkara def gàddu poto eh, tableau bi ne bu kenn jege Ousmane Sonko wax na dëgg de ku ko jege ne dëkk bi tàkk dama dóor fayu dóor fayu te boobu ba ndëgg ni nopp luguñu dëkkee diñ toroxal di Sousane Camara wax di Sousane Camara wax ne rey Ousmane Sonko ci guddi gam ko waxee wut woon a faraan waaye kenn woowu ko intérêt sax procureur bi Abdou Khouram li mu wax du dara ah li Cheikh Abdou Diagne wax répété li imam da wax la def li Sénégal yëpp wax waa ji ñu rey gendarme bi ñu rey Sousane Kamara ki leeral lépp leeral lépp te kenn woowu ko ah nii da ba ñàkk Blondé nii da ba ñàkk du Dia nii lañ def di ko def di ko def dëkk di ko def ah ba sut étudiant ñu du jeex te président su di ko xool leen Guy Marius Sagna assemblée nationale la dugg di xeexal policiers yi nga xam ne policiers yi nga xam ne monsieur bu mu mës dugg ñoo ko ci dugal métti mu sonn ci réew mi toroxal bu ne defoon Guy Marius Sagna te mosut a fayu tey muy taxaw assemblée di leen xeexal nañ bàyyi Cheikh Omar jaañ mu dem jotuwul la kenn dara Ousmane Diagne nañ ko ba mu dem détenu yëpp yëpp yëpp ba ci Ousmane Seck ba ci Dramé sama doom yi dañ ñëpp dañ leen ba ñu dem. Macky Sall leen yées fuuf ak njabootama leen yées fuuf dama ne Bougangé wër ci bitti ñii ne ci biir kon ñoo ngi ziare ñëpp di màggal ñëpp xale yi ci bitti di toppatoo ci biir yal na fi yàlla bàyyi yal na fi yàlla bàyyi kon asalaamaaleykum wa rahmatullah yal na buur yàlla sutural indi jàmm ci nun jàmm joo xam ne Macky Sall dana dem armée française dem insupasseur dem impérialiste bi nekk yëpp dem bante si Sénégal ñun donc teg ko ci yoon teg ko ci yoon maanaam ñëpp génn te bakkan du rot bakkan du rot kon asalaamaaleykum wa rahmatullah man da Seydina Ousmane Dramé bu la réveiller conscience procureur watawaat procureur defal li nga war def Suzanne Camara da nga ko war woo te bàyyi Cheikh Omar Diagne Abdou Karim ak xale yëpp nga ba leen ñu dem peace and love jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa jëf